Le plus grand échec est de ne pas avoir le courage d'oser. Mes chers téléspectateurs, bonjour à toutes et tous et bienvenue. Le talent ne suffit pas, à part quelques rares exceptions. Contentement la ñu àndal pour vous accompagner de 11h à 13h. Les meilleurs joueurs sont les plus gros travailleurs. Ce n'est pas parce qu'il est difficile qu'on n'ose pas le faire, mais c'est parce qu'on n'ose pas le faire que c'est difficile. a mais c'est trop tard. Croyez en vos rêves et ils se réaliseront peut-être. <laughs> Croyez en vous et ils se réaliseront sûrement. Il faut euh, être de soi-même. L'attitude détermine les actions. Les actions déterminent le résultat. Le résultat détermine les modes de vie. Avec les autres, c'est compliqué et ça prend du temps. Alors tapez haut. Les témoignages réussissent là où les vendeurs échouent. Il sert à rien d'être le meilleur si on est le seul à le savoir. Retrouvez du lundi au jeudi à partir de 11 sur la 2STV. Sénégal que nous nous retrouvons devant vous. Mes chers amis, la famille, bonjour à toutes et tous et bienvenue dans votre premier numéro ou bien même le premier euh, des meilleures émissions euh, matinales du Sénégal et de l'Afrique. Bonjour à toutes et tous en tout cas. nous sommes fiers de vous retrouver sur cette antenne de la première chaîne de télévision privée du Sénégal où que vous soyez qui que vous soyez là je vous dis bonjour et bienvenue alors ñi nga am mbégte contentement lépp la ñuy boole dugal ko suñu biir xol ngir ñëw gunge leen àndandoog yéen de 11h à 13h pour vous divertir et vous donner le maximum de plaisir et d'ambiance dama xam sànc sama xarit bi iñaanoo moo tax ba ma yegg see tak da nga ni man ak doom nday démb la nga tubay mala ma koy balaa njaay tey mooy dàq koo koy laay borom Kaolack sama xarit bi benn caméraman ay dabbak ñoom ñëpp dañuy soob ñoom ñëpp daba moom yow da war a régler yow yow da nga a régler lu leer laa wax te yow tere akapes tey doo def alors ñoom mbégte bànneex contentement ziar képp koo xam ne yaa ngi nii seetaan un peu partout dans le monde bokk ci waa Euh, France Italie Belgique Hollande aux États-Unis Danemark Sweden Canada bokk na ci ñi nga xamante ne aussi ña nga ni seetaan ca Allemagne bokk na ci waa Norvège bokk na ci euh, foofu nga xam ne moom moo di Espagne waaye États-Unis mama maana yàgg na maa wax ca defa standby ndaxte xale yi dañuy toog 7 heures ba 5 heures du matin jàpp 6 heures du matin euh, di la seetaan de 11 heures à heures kon nag loolu du ñu def lu dul di leen ci gërëm di leen ci kontaane bu baax a baax yéen waa États-Unis xam leen ni I love yéen a ngi leen di bëggee maa ngi leen di kontaane maa ngi leen di wax ni jërë ngeen jëfati jaajëf ndokkeel ziar magal ñëpp ñi nga xamante ni ñu ngi ni fii ci Afrique Mali Burkina Faso Bénin Côte d'Ivoire Zimbabwe Cap-Vert Libreville euh, Franceville Congo Brazzaville waa Mauritanie Gambie yàlla xam na ni Grégoire boo demee ci page u Macky Sall Instagram kalaame naa fa waa Gambie man yéen pouree na may jaaxaan Gambie démb ma ne leen woo leen ma pour la première fois dans l'histoire bi ma tàmbalee 11 13 ba tey wala ma tàmbale émission ah, ma teg samay ver ngeen gis ma yen bi ma ko defee ba tey pour la première fois waa Gàmbi man leen def leen defu leen mu metti ma loolu nag démb nelaw ma ma métti lu ko parce que yéen man ak yéen du tey man ak yéen seen longue histoire kon nag bu jaree ma ne leen woo leen ma waroon ngeen ma woo ndax ay match bu mu tax mu yàq sama diggante ak yéen te man waxuma fi defuma fi lu ñaaw lu tax yéen woowu leen ma démb kon Gàmbi démb am naa lu ma metti man nag ki ma mën a kalaame kalaame naa ko parce que nag ay xale bu ñuy xeex wala ñu histoire dañuy dem ci kilifa yi ñu per kalaame dem naa si paasu Macky Sall man ko Macky maa ko bindi barke alxuraan Macky saal bu bu yow kii euh, euh, nu mu tuddati geregaar bu la neexee nga dem xool ma bindi Macky saal mu ne ma naam waxuma sax naam daf ma déglu xool ma nii ma ne ko Gàmbi woowal Adama Baro nga encouragé ko ma baax billahi ma baax nga encouragé ko xamal ko ni ko lii football la parce que mi ngi ñaaw ma ne ko nag bi 11 13 de 11 13 ba léegi pour une première dans l'histoire waa Gambie ma ne leen woote leen te woote wuñu mu metti ma lool ça lire na commentaire bi ministre yi gis gis nañ commentaire yi mais nag loolu noonu nag doxe ko nga wax ko man nag amaa woon a yéen benn problème parce que musu waxuma dara ci match bi lu ñaaw mais bu leen Sénégalais too tooñee bu mu tax ngeen ko ci pële ma ko démb ma leen woo leen ma yéen waa Gambie ngeen bañ ngeen da ngeen di geer ak mat geer man, your friend. I'm your friend. And I know you like me. And I like you too. We're together. I always say we're together, we're the same. But what's up? bu fekkee ne gërëm daf leen yónnee ay affaire yoo xamante ni sama digganteeg yéen dafa bëgg mu ñaaw ngeen teel ma ko wax ma limité wu. 88 628 14 13 nelaw ma biig billaahi moo tax ma yeewoo ak ay noir fumé daf ma métti torop salaamaaleykum allo. alo alo mën na ñëwaat wala mu ñëwaat ci 88 628 14 ou 13 pour rappel rek que sama xol neexul ndax waa Gàmbi niñ ma def démb ma wax leen samay wax ngeen jël ko teg ko de côté dem naa nag ci kilifa gi ma ko war a kalaame kalaame naa ko di ci félicité waale Lionceaux yi man de football bi am na xaalis nag gars yi ku ci gagné coupe ñu jox la 10 millions booy de ku ne am na ci 10 ah teere booy yee day neex la de. xanaa concours animation amul ñun ñu dem représenter Sénégal jéem a jël dara ñu jox ñu ci 10 millions yi ah réew mi de barke sëñ Tamba ka booy naag naag naag naag naag ah. naag léegi supporter yi du ñu am supporter yi ñun ñu doon supporter ñun lu ñu dox ñun ñun ñun lu ñu dox 88 628 14 13 salaamaaleykum bonjour. maaleykum maa ngi lay ziar noo def. maa ngi fi. bàyyi ci jàmm. yaay kuul noo tudd. Astou Diop. Astou Diop a jubba ba bëggoo dugub. ah. bëggoo dugub baa joobee ni dañoo bëgg dugub de. alors elle est partie merci quand même pour l'appel un petit rappel que ni euh, lionceaux soyi jot nañu ku nekk fukki million maanaam 10 millions ak terrain lañ leen mayeti jour ni nag ñoom wax dëgg yàlla. football neex na lool waaye nag yéen yéen neex la ngeen tamit de yéen leen leen waa kaaf jox ak Sénégal fii tamit ah waaw sedd leen ma man daan naa ci woon ay xarit sax xaaral ma woo leen ñu sedd ma <laughs> en tout cas félicitations ah vous le méritez ndaxte nag kuy dem di xeexal dëkkam di sa di di di di di xeex ngir dëkkam rawatina performance bi ngeen def ci li nga xam ni moom moo di euh, euh, euh, ca coupe boobele ndaxte encaissé wu leen benn but marqué plus de 16 buts defe naa ni loolu jar na sax leneen lu dul 10 millions vous le méritez nous sommes très fiers de vous waaye yii bu amatee ñun supporters yi aussi nañu xool lu ñu compal parce que supporter aussi dafa métti nañ ñuy compal duñ jox 88 628 14 13 bonjour salaamaaleykum man tey maa noppi balaa waa Gambie di ma gën a mere allo. allo. waaw. Kousa. waaw maa ngi ziar de kooka la. waaw man ah. allo. waaw man la man la xam naa ne yow la waaye yow la kan ah. man waa Gàmbi mun nu maa mere ba pare ngeen may def nii gërëm waa ana Bass Thioung lu mu ci waa Gàmbi soit kii quoi soit kii waa Gàmbi dama leen bugga boobu teg ko à côté tegal ma ko à côté lu ma la wax rek dee ma duggalal waa Gàmbi dama leen bugga demal ak ni ngeen mën a fecc ñëwal foofu de ma jël ki ne ci ligne bi du foofu ba baaxul waaw foofu baax dama leen bugga foofu dama gàmbi dama leen bugga loolu rek gëree mën na tëjum réew alors 88 628 14 ou 13 bonjour salaamaaleykum. salaamaaleykum. maa ngi ziar de. maa ngi toolee Gambia ah, ñoo tooñ de. waaye yéen tamit tamit dama ah dañ mer bi. waaw mer war na tax ngeen bàyyi ma mat. ah bàyyi nañ la rek ngeen dóor ñu ni ak <laughs> waa Sénégal dañu iñaan ñoom mënoon na leen bàyyi coupe bi. jëm na xam nga Gambia Sénégal benn leen. ah. <laughs> waa Gambia Sénégal yëpp benn leen bi. wallaay benn ba pare senegal def lu ñaaw lu di ko doo 2-0 2-0 bëriw. gis nga ma dee raw waa léegi la moo tax yéen ngeen bëgg ma ci boole man démb woowu leen ma. ah démb ma dañ mer bi. Ah, yéen seen mer gi yàgg na nag man wax naa ko Macky ah, Sall dem naa ba si paasam waxu. Gambia moom yow leen bëgg yow. ah. waa Gambie yow rek leen man xam naa loolu moo tax démb ngeen <laughs> jaaxal ma torop torop torop mais. di waay léegi xam nga lu ñuy def man ah. sa émission bi du ma dee raw. ndeysaan da ngaa baax da baax de moo tax rek nga bëgg a suma émission. su ma jaay saan de ma ne yaakaar ma man loolu laa xam man ngeen a bilaay na kontaan naa kontaan naa nag trop yow mii sax yow apaiser nga situation bi. yàlla na la yàlla fay jërëjëf waay jërëjëf jërëjëf waay yow gaa mi dama leen a bugga jërëjëf jërëjëf ah. jërëjëf <laughs> foofu la gëree ayca maa ngi commencé giif gis ngeen ma nii maa ngi giif nii la nii la Sénégal bi lii moo fi xaj waaye wax yu sew yu ñu fi nekkee woon ay wax yu sew te yëpp abaaw ko fi indi moom moom dafa bëgg ay histoire ak ay wax mi ngi nii génn na ci yow waa Gambie woowuñu la RFM nga ne woowuñu la man la ñuy woo on sérieux bu leen indi ay situation ci dëkk bi quoi bu ñu fonto ah gërëm quoi doxalal séance d'étirement jaru ko nañu nuyoo national rek juste après ñu présenté leen programme bi nañ jël ci ni ci ligne ba pare 88 628 14 alors kooku dem na merci beaucoup quand même pour l'appel tu peux revenir juste après nuyo national bi buñ ci noppee ci on va vous présenter le programme d'aujourd'hui parce qu'on est mardi mais un grand artiste sera là dans quelques instants si c'est bon monsieur Grégoire à toi nuyo national Euh, Karabalik merci beaucoup Dib merci beaucoup euh, à l'international Samba ak Bilou jërë ngeen jëfati lii tax na ma laaj sénégalais yëpp ci lan ngeen ne ba yéen a ngi ci jàmm yéen ñi nga xamante ni yéen ngi ci biir kër yi euh, toog di seetaan maa ngi leen di ziar yéen ñi nga xam ne yéen a ngi ci bureau yi maa ngi leen di ziar taxi car rapide yi yor seen téléphone di setaan maa ngi leen di ziar ñu tëdd ci hôpitaux yi yal na yàlla fëgg seen bopp maa ngi leen di ziar ñi nekk ci prison itam yal na yalla génne leen fa ñu nekk bu baax baax a baax ngi leen di ziar ñëpp di am mbégte ak bànneex pour vous accompagner de 11h à 13h en compagnie véritablement euh, de nos partenaires leaders bokk ci Uber la meilleure des boissons énergisantes euh, qui va qui va vous accompagner de 11 à 13h moo jox énergie tey yàlla xam na ni démb nelaw ma dara Grégoire je te l'ai pas dit moo tax sax ma takk lumière fumée yi ak sama coowal gambe gi démb mais comme que maa ngi gi ça bi ma ko naanee léegi gis ngeen énergie bi ni muy demee énergie ngay àndal benn boisson te suffit nga jox keneen mu naan keneen naan keneen naan numéro bangoogu bu ko defee ngeen woote ci wut ci ay kees yu carton yu bari mën a euh, de euh, naan ci boisson bile ndaxte baax na te baax na itam ci yaram donc euh, Aïcha Aïssatou waa Aïssatou bi nekk ci bureau comment ça s'appelle encore Touré Mandimori moom mën na la jox numéro pour waa Plaza Cosmétique Euh, ñu bindal leen ko ñoom aussi parce que il y a beaucoup de gens euh, qui m'ont appelé euh, pour laajte numéro bi duñ ko mën a wax ci téléphone bi chaque fois mais on aimerait vraiment gré ñu leen koy jàllaleel Plaza Cosmétique bokk ci diw yi nga xamante ni ak lii defar seen yaram muy góor jigéen mag ak ndaw maire pa ba ci xale bu ndaw liir buy doog a juddu sax am nañu ay produits yoo xamante ni moom lañ koy war a jox xale du bu juddoo rek dangay ngay jël vaseline ak karité def ko ci yaramam mooy lakk xale yi nga xamoo léeg-léeg doom day juddu xees mais parents yi koy ñuulal ndax càmmal xale bi day dem ba day lakk euh, euh, euh, yu bari ci ay powam moo tax du mën a xees man mii nit ku xees taa woon sama yaay moo ma jàpp di ma dëdd ay qualité rek ba pare di ma teg si naaj bi may lakk rek di dem moo tax ma ñuul nii man taay xees naa sax parce que sama vrai tey moo ñëwaat nii ay xësa yaa ñeme yàlla mbayesa gi moom baaxul moom 88 628 14 13 salaamaaleykum. waaleykum salaam. maa ngi lay ziar. yaa ngi yaa ngi baax. noo def. alhamdulilah. ça se passe comment. allo. allo. ayeya système yi dem na donc ñu ngi koy euh, ziar moom tam bu baax a baax. Euh, di ko jox wàcc wàccuwaayam alors euh, jërëjëf kontaan ci yéen man ma xeesoon ma ñuul kooku concerné wu la Grégoire yàq nga deru euh, bëggoon nga ma jaxaseeg artistes yi dem mais weer naa la dugal naa ko yónnee naa ko Pape Diouf ak ñoom caat ñëpp ne kooku moom wax dëgg yàlla nit la koo xam ne ñu ngi koy seetaan mais nitu fitna la ku bëgg ay wax la ku bëgg créer ay détails la yow Grégoire moo tax ngay dugal yi ni mel mais du la faale ndaxte du ma ci dellu kan moo fi ñoo di 2 ñoo di deux daawa taalibee rek yeeru sa bro bu yëgal mbagg ñoo di désert ñun ñëpp xam nañu yoorul xam nga fi invité woon 2 ñoo di 2S lay wax ngaaka bi ma woon mu ñoo di ëppal nag de 2S moom boo ko dugalee ci classe yi dañu xuloo ma la yow lu leer laa la wax 88 628 14 13 waaye yéen allo Grégoire nag yow ku bëgg ay wax nga allo. allo. maa ngi lay ziar. de la ziar Kafa. noo def. maa ngi fi. yaay si jàmm noo tudd. Fatima. Fatima tu m'appelles d'où. ça va. ah mani foo may wooyee. Touba. ah maa ngi lay ziar di nuyu waa Touba yëpp. Mm. naka ngeen def Touba. ñu sant bu baax. baa yéen si jàmm. ñu ngi si jàmm bu baax ah. alhamdulilah. ah maa ngi ziar maa ngi ziar de. ah yow loolu dafa photo photo Ahmadou yu bees yi ñu ñu génneel. ah bay da waar de. te te te tubaaba garaaw. lu garaaw la de. kéemtaan la de billahi wallahi ndeysaan dama koy xool rek man daal tiktok bi fu ma romb ñu wan ma ko xam nga vidéo booy topp di xool benn dañuy indil yeneen. wallahi ndeysaan dama ciy xool rek. tey sëñ Tuubaa allo. jërëjëf jërëjëf jërëjëf ña ngi koy ziar nuyu waa Touba yëpp di leen jox seen wàccuwaay Grégoire bëgg nga ay wax nekk 2 bi dégg nga ko man déggoon naa ko mais pour man leneen la doon wax mais fii daal ngaaka laa invité woon 2S ñoddi 2S ngaaka lan la fi ñoddi booy ñi dañoo bëgg ay wax yu sew quoi ñoom tamit rappeurs yi ba pare yow tamit lii passé na bul tax ngaaka génn dem studio moom nee na ku ko classe day fayu ngaaka kon kii yow lay waxal dégg <laughs> bërki démb toj na si ses sama xarit bi maa ngi lay félicité chéri Fatel yal na yàlla defal la jàmm ak tawfeex sutura moom tam ndaanaan li fadrin la il fait partie des meilleurs de sa génération moom ngaa kam leen de kenn dootul naa table li ni mel kon respect from Guédiawaye wala boog allo salaamaaleykum allo allo allo maa jaar bu baax kan la gayen waa Gambie woote waat leen boog sama xol bi gën a neex allo. waa yaay si jàmm noo Ousmane Ndiaye. Ousmane Ndiaye. maa ngi lay ziar de Ndiaye Dragon. foo dëkk alhamdulilah. Touba. yaa ngi Touba maa ngi lay ziar waay Ousmane. sant yàlla bu baax dama bippe rek ngeen. ah bi neex na de. dégguma. mais dama bippe rek mais émission bi ah, moom waaye lii seen yëf Sénégal a moom émission bi du de. Ah, seen yëf la lu ngeen ci bëgg ci am. kontaan naa euh, lii seen ala onze treize yéen a ko def ni mu mel kon seen alal la nu mu mel rek yéen la daa ñëw fekk fi dara ngeen def ko dara fu dara nekku nag bu ñu fa defee dara dañ koy sante ña fa def dara ña fa def dara ñan la Grégoire mooy les sénégalais parce que ñoom ñoo tax ñu jël ko en 2021 meilleure émission en 2022 en cours de téléchargement pour en 2023 2023 moom dañ koy jëlaat nag parce que invité woon nañ fi ay ñu neex yooyu da cee bokk performance yooyu da cee bokk ñu ko jëlee rek après guerre dañuy bàyyi dootu ñu bokk ci ay affaires yooyu noonu ñu xoolee leneen ko parce que ce serait mieux sinon gars yi dinañu mystique <laughs> alors on va se rappeler on va se de notre papa on va se rappeler d'un parolier on va se rappeler de d'un d'un très grand chanteur on l'a même pas oublié mais on va se rappeler de ses chansons on va se rappeler également de l'homme qu'il était muy Papa Thione Ballago Seck suñu baay jëteele réer tey la am ñaari at ci suuf mu doonoon tiis dimaas googu kenn dootu ko fàtte ci Sénégal ak ci àddina ndaanaan bu génn àddina ku mënoon way koo xam ni dem leen ngeen xoolaat la mu way ba léegi doo ci gis dara luy naxe lu mu woyoon téere la lu mu woyoon rek da ngay xam ni kii ku yàlla mayoon la man ay morsom damay toog di ko déglu di jooy tey récemment am na benn image bu ma publier boole ci sax yi ci biir bàmmeel ñoom xanaa duñu ñu woor pour wane leen firndeel leen ni moom préparé woon na sax boppam ndax xamoon na ni dina dem te ku ne dem Papa Thione Balago Seck yal na ko yàlla xaare aljana bàyyi waali ah di masaw suñu yaay ja na Diouf jaaga te di ko wax ni wax dëgg yàlla euh, euh, euh, du ñoom rek a ñàkk waaye àddinaa ñàkkoon Papa Thione on va se rappeler de cette chanson de Momodia qui a bien chanté li nga xam ni moom moo di les vœux véritablement de notre papa ko kan la ne ko Thione Ballago on va écouter Momo Dia et juste après je vais vous mettre en live de Thione Ballago Seck et Wally Ballago Seck mais juste avant on va écouter Momo Dia lan la waxoon ci Papa Thione si c'est bon à toi Grégoire let's go jërëjëf way waa ngoog balaa ngoog xajoon nga fii waaye wàccoo nga ak Sénégal ndaxte la ma waxoon léegi ci samay wax mooy ñëwaat ay morsoom ku ko bëgg déglu ku ko bëgg gis ku bëgg a dégg dëgg ku bëgg dégg ay way ku bëgg a dégg lu lay yee ak lu lay teg ci yoonu siraatal mustaqim demal nga déglu Papa Thione nee naa la way na ba way yàlla suñu borom barke alxuraan nga xam ni moo mën a way nag way na ba way yàlla euh, Papa Thione yàlla ko yàlla xaare aljana lañ koy ñaanal rek ndeysaan macha allah euh, euh, na lu ne way na lu ne te lu mu way tem la nee na suñu borom boo ñu wanoon sax sa xar kanam nit ñi catu la laay dañ koy catu ci wayam wa dégg ngeen lam ca wax xam nga cat dafa sew moo tax mu ne que euh, bu ñu suñu borom wanoon lenn ci moom tax nit ñi catu ko ndax làmmiñ papa coon moo mënoon a way te dégg te fu xóot lay waxee nag ay wayu xóot la daan maye mangook ñi ngi koy ñaanal suuf oyof ci kawam dio bi mook Wally Balago Seck je me rappelle fii la dabba di filmer di daw waaye fii la libaas daanoo woon Grégoire yi est-ce que année bi yow boobu gi nekkoo fi woon de man man mi sax nekkuma fi woon ma doon seetaan rek 88 628 14 16 mais c'est après que j'ai vu que Dabba moo doon daw téye caméra bi di def nii xoola gëré di daw téye caméra bi def nii libaas di filmer wala libaas du fii la daanoo woon moom yàgg naa daanu tamit de moom dafa yàgg daanu de ay daanoom du benn de daanu yu bari la daanu moom moo tax xaw ma ba xam moom la woon ou pas Bon, on va se rappeler de cette chanson, c'était un duo, si je me rappelle, 2017 ou 2019 Grey. Je me rappelle plus de, de la date, mais wax dëgg yàlla duo bu neexoon la man j'ai cette chanson chez moi et je l'écoute tout le temps Thione di way di way mu neexoon loolu ndeysaan 88 628 14 13 ñu jël ki nekk ci ligne ba pare bonjour salaamaaleykum. waaleykum salaam. maa ngi lay ziar. maa ngi fi c'est ça tey c'est noir blanc rafet na de. waaw c'est moi c'est moi merci beaucoup merci merci je suis pas Grégoire quoi. <laughs> Ah, <laughs> yéen baax yéen a baax te bëgg bëgg lu ngeen gis ci lu rafet wax ko. dëgg la dëgg la. noo def nag. sant yàlla bu baax. naka yi sa ça se passe aujourd'hui alhamdulilah maa ngi lay ziar bu baax fooy wootee. maa ngi wootee mos naa la woo deux fois. ah. ma ne woo naa la deux fois Thiès laay wootee. ah wax nga dëgg Thiès kaay benn dëkk ñaari gaar dëkk ajaa jàllo ba. Mm-hmm. eh Adja Diallo barki dem bi mu duggee ci sabar gi am nu mu mel dama xam ne jigéenu cees nekk du du rafetaay rek ngeen mën yéen. waaw kon baax na. non am na yeneen yu yu yu ne ci ginnaaw maa ngi lay ziar bu baax a baax en tout cas. delloo ziar la sa numéro bi jeex jàppale ma si. waaw bul coupé kon ñu jox la ko ci suuf nga teel koy wax amul benn problème ñoo ko jërëjëf jërëjëf sister merci. waaw kay amal jàmm bu baax. la lay xanaa kontaan rek. mii di ree laay wax kay. ah d'accord Grégoire moom daf la bëgg rek. <laughs> daf ma lan. daf la faa. ah daf ma faa nag sérieusement daf ma faa. ay xëcca yaa ñeme yàlla. <laughs> Euh, amul problème si sa dégg nga. ok kontaan waaw. yu des fois da ngay da ngay ñàkk da ngay ñàkk xorom nag de Grégoire la ak ay waxu ñeme yàlla bëgg bokk rek salaamaaleykum ma ki waxul ak yow man lay waxal. On va écouter cette chanson Wally Ballago Seck et son père Thione Ballago Seck duo boo xam ni dafa neex dafa spécial bala di bàyyi ngeen barkeelu ci ziar ko seetaan ko et juste après on revient si c'est bon à toi Mr Grey let's go. gidi Papa Thione seeni jàngataay bàyyi Mouhamed dañu leen Papa Thione na doy gita dabra gita gitas gita gitas

gi ni nag waa Paris ñu ngi ma ñoom ma yóbbante ñu ne Papa Thione kañ lay dem Paris ah 2000 2000 non non non non non doucement doucement doucement doucement léegi nag Faramaren production Faramaren production mooy ñaan Papa Thione engagé ko Olympia 2017 en décembre ah yéen waa Paris Papa Thione dina ñëw en décembre Olympia 2017 Faramareen production moo ko engagé ak est-ce que d'accord ngeen léegi nag Faramareen musique nee na day yóbbu Grand Théâtre est-ce que d'accord ngeen est mais loolu lañ doon ñaan d'accord na waaye na ma faalen waaye na ma faramaaren may tuuti maa ngi togg sama ceeb def ci tuutu xuluñ su pare su pare Monospia, Gran Teatro. Grégoire Grégoire euh, morceau bii dama ko def ba enregistré ko ci sama tele dama koy déglu chaque fois xam nga ban partie moo ma ci intéressé rien ne sert de courir il faut partir à temps yàlla noppi na démb tey soog a ñëw dara jarul daw lu war a ñëw bu jotee dana ñëw déggal waxu papa coon googu mu ne lu war a jot wala lu war a ñëw bu jotee rek dina ñëw moo tax nit warul yaafus warul bàyyeeku ak lu mu metti metti gëmal sa bopp nga nekk ca la ngay nekk ay morceaux sa diir lu ci ne ci concept wala ci contexte bi nga ko bëgg a yóbbu daf fay dem rien ne sert de courir dara jarul yàkkamti ci àddina àddina da ngay dal teey xam ni lu metti lu ne bànneex bi dina ñëw dara ñëw rek sotti nit ñëw rek taxaw ci télé nii di wax wala ñëw nii rek taxaw gars yi seen jaar-jaar dafa metti de moo tax il faut jamais dire jamais gré Papa Thione yàlla na ko yàlla xaare aljana 88 maaleykum salaam. maa ngi lay ziar frérot. Moussa. baa ngi am jàmm. maa ngi jàmm bu naka yi tey ça se passe. sant yàlla bu baax xome wooye. mais a ah maa ngi lay ziar ana waa Touba. ñu ngi ñu ci jàmm bu baax. yaa ngi ci jàmm bu baax a baax. alhamdulilah mais son neex na de macha allah. wallaay ndeysaan kookoy papa Thion daa mënoon way nag. yaram na billahi. kenn du ko dab ci way de kenn du ko ci dab. wayli wayli la waykat la. kontaan ngeen ci live bi kon jërëjëf ma nga Touba ñoom tam ña ngi koy gërëm ziar ko bu baax a baax j'ai une surprise pour vous avant l'artiste euh, d'honneur j'ai une surprise dafa am benn boy benn boy bu kon Grégoire je t'ai envoyé les vidéos am ga yoo téléchargé donc c'est bon euh, Gré maa ngi la koy yónnee nii nii après après pub yi dinañ ci jot moom mu ñëw il va s'installer boy bu con du ma leen waxagum kan la sax dama koy defal surprise il est tellement con que Sénégalais yëpp dañu ja dañu waaru ci moom lu mu def moo ko tey nag mais on verra on va marquer une pub euh, après on revient inchallah rabi pour euh, la deuxième partie si c'est bon ah Dóor ak Dé ñu dem. salaamaaleykum si loo leen ne bàyyi nañ ci jàmm bienvenue chez Plaza Cosmétique certaines filles diront que le nom de la boutique m'est familière oui vous avez parfaitement raison maa la ko wax xale bu jigéen boo fi gis mu mel ne urul ay ni plaza cosmétique mooy secret wam produit am ma ngay bàyyeekoo ba Thaïlande moo ana ñi yaakaaroon ni seen yaram dootul baax ndax di yu bon yu ñu yàgg utiliser ana ñi am ay kinto ci yaram ba ci tànk ay ne si kanam plaza cosmétique andil na leen ay savon anti acné ay kit de visage crème hydratante lotion ak gommage yooyu mën a utiliser ci sa kanam ba ci sa yaram ani xale jigéen yi bëgg a belli rajeunir perte poids mani la balle est dans votre camp ndax suñuy produit benn la fi ñi yor teint glow marron wala ñuul kuku kaay leen ñu def leen diamant noir am nañu ay lait de corps à base de vitamine C vitamine E glutation et complément alimentaire moom suñu yëf la mag yi démb ya maanaam suñu maam yi sax bàyyiwuñu leen ndax booy jëm mag da ngay soxla ay produits yu mën a adapté ak sa yaram ci gàttal xale mag ba ci bébé yi sax am nañu seen ay produits bopp alors qu'attendez-vous Plaza Cosmétique am na Kër 493 08 08 ou 78 493 wala nga dem bu Yoff 77 285 74 75 wala Plaza Cosmétique marché HLM 78 106 95 95 xanaa doo hall ak Plaza Cosmétique xale yi jigéen yi utiliser suñu produit yëpp fu ñu romb ñu ne leen yaa ngi shine like diamond diamond pulaar mbi yaari ha fooje ɓuri jooɗaade ha mooje womrede wara sammude ko noon gandi e ɓernde jabata gawla jontaɗo ndaari huuley lam e groupe mum dona ngawla ɗum noon gandi ko jamma mawɗo baɗowo gandanɗa hoore maɗa sorano rando hommage lam binta jontaɗo ndaari e gawlo jimannoɗo welto holno jamma warata waɗa ko le 17 mars 2023 à partir de 20 heures ɗo soranoɗo bande men huuley lammi kalla wonde e duunde babadama président de la République du Sénégal monsieur et la première dame de la République du Sénégal Adja Mariam Faye Sall. parrain ministre de la République du Sénégal Amadou Ba. parrain ministre de la culture Aliou Sow. marraine madame la ministre Aïssata Tall Sall ministre affaires étrangères El Hadj Ndiaye de la 2STV maître Malick Sall directeur pétrole et gaz. Karaas Kan opérateur économique docteur Djibi Diallo sous-préfet mu Dakar. marraine madame Soumaré Barthélemy Collé Libreville Gabon marraine Fatoumata Batoulou Niane présidente Mali marraine Fatoumata Dembélé Paris la France marraine Sowrugi Diallo marraine Kini Anne Goudiri marraine Madame Safiatou Wane invité d'honneur Farba Ngom député à l'Assemblée nationale maire de Agnam bande mene enen fof ñani hen poten gandanɗa hoorema ɗo soranoɗo haalo pular mbi teddugal dasetaake ronede gawlo jontade dillinɗe jamano huley lammo ko darima kañum mum gandon teddugal woodi heɓal pular mi salminima on mi weltima e moon onon ko bandiraɓe ko moƴƴi ko yinde o ko andama nde onde andi ko mongo jërëjëf ñu ngi koy contane bu baax a baax lam ca làkk yëpp bu ma ko xamoon mën leen ko tekkil waaye jàpp leen ni bés la ba ñëpp di waaj bokk ci euh, partenaires yi ñuy àndal ba plaza cosmétique euh, numéro téléphone am boobu gis ngeen ko ci bande annonce bi donc daneen ko récupérer pour ngeen dem fa la ma ca wax lépp looloo am mango plaza cosmétique yoo xam ne mag ndaw xale a koy énergisante bi nga xam ni moom aussi moom moo ñuy accompagner jox nu na ñu toog na ñu toog Afrique monde entier di seetaan te tey gëm nañu ni xam na la may def moom ak yàlla dong ko xam léegi nag merci beaucoup c'était juste un passage ci première partie bi ñu rendre hommage suñu baay jooju nga xam ni teel na réer waaye ca la mu doon def ku ne xam na ni euh, euh, euh, baaxee nañ ci pour ñu wanaat leen yenn œuvre am waaye itam euh, bari na ay morceaux yoo xam ne bu ñu ko fi doon teg cinq ba huit jours du jeex wala dix jours wala sax un mois boo ko doon teg ci onze treize pour teg ay co euh, songu Papa Thione du jeex euh, bari na ci c'était juste pour vous rappeler li nga xam ne moom moo di Papa Thione waaye nañ jël ki nekk ci ligne ba pare mon ami prépare toi ndax juste après Sidi Diop bi yow laay dugal salaamaaleykum bonjour. allo live Sidi bi pare ko alo waaw. allo. allo oui. maa ngi ziar sister. wàññil télé bi wàññil télé bi s'il te plaît. nga déglu ak sa téléphone please. ay ki lu muy def nii yéen doo bàyyi bi te nga déglu ak sa téléphone. bàcc li kii lu ko dal ayca. Euh, ma Mambayan, Mr. Mbarak, Mbarak, I, I say Mbarak. <laughs> My bro, I, um, I appreciate you, bro. I appreciate you and I really appreciate you. maa ngi lay ziar mën nga waaj eh, juste après Sidi Diop bi ñu dugal sama waaj yi nga xam ni tey def ma fi indi lu spécial mais juste après lui on aura l'international euh, qui est en cours de route léegi mu yegg si muy Jaman Express moom tamit on aura l'occasion de discuter avec lui mais laay aussi Sidi Diop bi barki dem xale dañ ma ko laajaat gërëm ndax na la seen biir kër yi tey ñu ko kon ñi nekk ci salon yi fexe leen ngeen leetu lu baax ñi xasate taalu añ ba pare bu leen ruusil wala bu leen dogal seen ruus yi bàyyi leen li ngeen di def ngeen concentré wu ci yooyu Grégoire may leen Sidy Diop bi ñu doxal ak moom si c'est bon les go ayca booy 88 628 14 ou 13 bonjour salaamaaleykum Gré, prépare-toi s'il te plaît allô allô ayca mangok jërëjëf ña ngi koy béggee ziar màggal ko alors si c'est bon pour le live de Sidi Diop tu peux nous mettre la chanson en attendant suñu waa ji doog a takk jaajami bu ñëwee ngeen doog a xam ma leen di wax kan la c'est bon Ndeye <laughs> Ndiaye Ndeye Ndiaye Banaya moom am na yàq-yàq moom liggéey bi ni muy def nii lii lii rotation bi yéen a ngi koy xool ni mu koy def nii ah yàlla baax na alors ce garçon il est venu récemment sur la toile mais il se moque des gens il se moque carrément des gens moom dalay fekk yàlla bindee la na nga taaroo nga rafet nga ñaaw amul problème mais yàlla am na nu la bindee moom mu yokk sa ñaawaay yokkaay bi mooy dalay caricaturer jël sa image def ca la ka saf donc j'ai eu l'occasion de le rencontrer et il est là aujourd'hui sur le plateau on aura l'occasion de le découvrir et il se nomme Ahmadi Ahmadi Euh, caricaturiste donc caricaturé na ku ne ku ne xam na ki may wax kon j'ai l'honneur de l'accueillir sur le plateau mon cher ami viens avec les tableaux tu peux le cacher yi nga mën a euh, euh, nëbb nëbb leen nga taxawee ne xool caméra bi anata waaw nëbbal yooyu ba pare mais maa ngi lay ziar mais ku koo wangi nii maa ngi lay ziar kontaan ci yow fi ngay xool mën nga taxaw dugal ci bu baax tuuti voilà ñu nuyu téléspectateurs yi nga xamante ni ñoom itam ñi ngi toog di seetaan boobaak léegi alors j'ai le plaisir jëlal leen invité boo xam ni yaakaaru leen woon peut-être Euh, dina ñëw ma indil leen ko sur le plateau euh, euh, Armadi oui mais maa ngi lay ziar. Kheucha maa ngi la koy delloo. baa yaa ngi am jàmm. alhamdulilah. <laughs> lépp jàmm yaa ngi taw nice mi ngi nice. nice cool da nga xaw a kii da nga xaw a am kersa parce que doo xool de. non non non kersa sax waaye léegi lan moo tax caricature woo sa bopp ba ba tey. man waaw. ba ba siiw rek. nga baay la. <laughs> ba siiw rek ba siiw. <laughs> <laughs> non instant yi moom yaay bomb parce que caricature nga ñu ne sénégalais yi xam naa xamee ngeen ko sur TikTok sur Instagram parce que nag jàpp na image yu nit def ko lu ko saf balaa ñuy seetaan vidéo yi am na deux tableaux yu ma indil on va euh, aller voir euh, tableau yi njëkkatil benn ma xool ku yebaate la nag kii ka la. Eh! mooy xale bu ndaw def buzz. defal nii tableau bi sa kanam da ngay xool caméra bi. caméra bi nga koy wan. xale bu def buzz. non wuy wan ko caméra bi nii voilà c'est comme ça. nga def nii. <laughs> arrière taar bi man ko yokku taar bi. <laughs> ay lëkk bis yi lan la yaay <laughs> bu la maman Oudé léegi léegi la baiser xale bu ndaw de bës a ko ana nga baiser bu naan addicteur bàyyi jël rakura montre-nous euh, véritablement euh, cette partie bi nga xamante ni euh, la fille de Thiès def na ko baiser loolu gën a ko na nga ko jël ko aussi pour ambiance beneen bi tableau bi kan la kii mooy Virginie ah Virginie eh non non non ne fais pas ça oh oh là là yow yow jabar jaamur di nga jàpp di nga def nii nag ah dañuy rafetal rek xëcc <laughs> yow nii ngay rafetalee. <laughs> kon dañuy yokku rek. ah dañuy yokku taar rek xam nga aar bi laaj. <laughs> booy. booy nag booy yabaate nga nag de. barke alxuraan da nga yabaate. alors lii dinañ ci ñëw léegi léegi Grégoire comme que yow euh, des fois doo nekk euh, on peut aller voir les vidéos yi nga xamante ni jot na ko def jot ko enregistré jot ko defal ñenn ci sénégalais yi on va voir benn par benn après moom mu commenter si c'est bon on regarde. Gak kebelet. no, no, no, no. no, no, no, no. no, no, no, no. no, no, no, no. non sérieusement nag kii il est pas mais kii lan mooy problème am yow xoolal ñi nga jàpp di leen caricaturer nii jàpp seen kanam yi Pape Sidi mii nga yóbbu ko Bob Marley yël ay rastam yóbbu ko Fala sax waaye nag moom mel na ku kuraa jàpp est-ce que gis ngeen waali gërëm waali war ma parti waali bi ngir yàlla rek waale ngi mel ne ku kuraa jàpp Viviane ak bëti ndeysaan oh bi yebaate na booy bu la fant waali yeeg Viviane yeeg ñenn ñi jàpp Sidi Diop yow dafa bokk Sidi Diop non non pour lan ngay xaar ah, laal <laughs> Sidi ku laal waali da war a laal Sidi incha allah léegi Siri war ngaa laal Pape Diouf ñetti ñooñu kenn leen bàyyi. léegi léegi kay <laughs> na ko gars yi góorlu. defe naa ni lii euh, c'est beau à voir. waaye nag ñaaw lool ci ñi ngi koy defee nii. gars yi nag euh, bon ils vont accepter. ndax euh, peut-être sa liggéey ngay def mais est-ce que réellement. nii ngay dessiné. bon c'était juste dafa nekk ben affaire boo xam ne ci ci aar la bokk. c'est pas facile comme ni ma koy defee nii modifier kanamu nit. daanaka boo xoolee moo moo nekk li gën a jafe ci ci ci art bi mais à part ça moom damay def ay portraits yu correct. ok ah yaa ngi def yu correct damay def ay portraits donc pour <laughs> euh, nit ñi ree. dindi stress ci dëkk bi xam nga Sénégal moom dëkku ambiance la bégal nit ah. <laughs> loolu la loolu la <laughs> loolu la. léegi lan ngay xaar pour caricaturer président Macky. yii baal noonu rek baal noonu. lan baal noonu rek. waaw mais yow léegi kon ñun nga yab. non demeewul noonu sax. waaw mais la moo tax yow caricature woo Macky Sall Sonko caricature woo ko. Hmm? Sonko lu tax doo caricature. lañ baax ba naa ko lab naa ko ba ci kanam. Sadio Mané. Sadio Mané moom bientôt incha allah. bientôt mais Macky lab nañ ko ba ci kanam. <laughs> yow koy booy ko yamaate nga léegi ñun ngay jàpp di caricature Macky doo ko laal Sonko doo ko laal. xam nga rek. mooy lan. lab nañ ko ba ay nit ñëpp. ah léegi ñun nag. non yéen ay ay dit ngeen. <laughs> waaye léegi Viviane nag léegi lu tax nga caricaturé leen. ah mais nice. <laughs> mais nice quoi. waaw loolu rek. Ah, doy na waar alors t'as commencé euh, t'as commencé euh, quand kañ nga commencé def ay caricature bon lii moom yàgg na ci man parce que don la quoi. don la sama papa laa ko ndur. waaw ce qui paraît ton papa il faisait ça. waaw aussi waaw moom laa ko ndur moom day def ay caricature yàgg na ci art. def na école des arts France ak euh, Paris. Euh, ak kii euh, Paris ak euh, Sénégal. du la yàqal sa liggéey dara. non non non taxul ngay bañ a ñàkk ay clients parce que la la manière dont tu le fais c'est moche. non gars xam nañ ni lii c'est pas facile te lii ku ko mun. Ah, rek xam yi xam nañ ni c'est pas facile. waaw waaw ok bokk na li gën a jafe ci art quoi. li gën a ah, jafe di nit di ko def. di ko modifier nii. ok c'est la tête quoi. mais <laughs> dans nous on yàq moo gën a gaaw defar. waaw mais yàq. mais bokkul nag. ah ci dessin bokkul quoi bokkul quoi peut-être parce que maanaam xool nit image nit li gën a rëy nga rëyal ko li gën a ndaw nga ndawal ko beneen expérience la quoi ci ci bi la mais ak sa tuuti ree gi ngay àndal nag booy booy joxe vidéo bi. mais ful fulla gi moom foofu maa ngi présenté maa wane nit lii moom c'est pas facile reetaan bi xam nga tamit boo tooñee nit moom. faaw nga tuuti. <laughs> ku yabaatee ngi nii en tout cas. Euh, ñu ngi lay ñaanal euh, une très bonne suite. Euh, bi nga ñëwee yàggul. mais actuellement sur TikTok tu es suivi sur Instagram les gens adorent. Euh, on aimerait nag vraiment voir euh, image yu euh, Sonko ak Macky même boo leen boolee moo gën. def ko mais la la la ma problème foofu. non c'est mais leb naa ko rek. ah <laughs> ko rek bul duggaat foofu que ça. Adji Sarr dugg foofu. mais kii moom kii du kii eh, laay. kii ragal la de. non du kii ah kii mooy ci kanam nañ ko góolu ci kanam quoi mais bi ci kanam kon xam nga ni dofoo dina jàpp la rab tongolo la xam nga ñi ngay caricature tamit am naa si xam naa fi may yem quoi je dépasse pas les ma dépassé nit boo xoolee ba ci image yi leen ma maanaam yaa ngi dépassé parce que yow ah, maman Adja Ourey yaay visi bu la gisee nii nga def doomam ji xam ni def nga lu la saf lii dépassé wo lii yéen dépassé wu nañu waxante dëgg ay lexu visi tol na ni sama ko be ay lexam tol na ni yéen ah xam nga ne lii jekkul rafetul ma ay maa ngi wu ma lii rafetul maman nag ah fi may waxee quoi maanaam boo gisee caricature yenn yenn gars yi li waral coow yi parce que ñoom ils sont dépassés quoi dañoo dépassé nit ki xam nga jàpp nit su defee ko neneen mais man boo xoolee samay vidéo dama am limite quoi ok eh, dafa am fu may ngay dessin nit ñi ba pare euh, kii tuñam yi nga jël nii aj ko ci kaw lii tamit dafa ñaaw lool lool lool lool lii lii mu def nii rafetul tamit xam nga jabaru jàmbur sëyagul yàggagul sax nga jël gémminam gi ne aj ko génn ay tuñam mu may sax bintu bintu sama benn grande sœur la mooy lay nduru nii xam nga ni lii rafetul mais lii dafa rafet azo ah lii dafa rafet lii dafa <laughs> <laughs> alors ñiy kontaan ci yow bu baax a baax a baax ñi bëgg jot sa numéro pour nga defal leen caricature ci nit yi. Euh, joxeel sa numéro ñu may la ko. ak portrait tamit aussi damay def. portrait yu normal cadre sous verre mais da nga may defaral bu normal ma ñëw wane ko fii moo ah, gën. mais nii nga ma def nii rafetul. ok dama la waroon dessin ci plateau bi nii léegi. ah, ah vingt minutes dama koy def gore. en ah, vingt minutes chaque été waaw léegi dama lay invité waat nga ñëw dessin. bon vingt minutes. incha allah c'est bon ah. nga ñëw toog ne loolu dafa nekk c'est de l'art. ñu gisaale ko nga dessin yenn gars fii en tout cas kontaan nañ ci yow. merci d'être passé j'espère que tu as adoré donne ton numéro après tu verras que les gens vont t'appeler. ok numéro bi mi ngi ci page Instagram bi 77 116 18 94. Ahmadi caricaturiste. pour ñi ma a contacter mën ngeen dugg sama page Instagram. ay ca jërëjëf mangook ñi ngi koy kontaane ñu itam bu baax Ahmad yi euh, ay nopp Pape Cheikh moom itam gudd na lool teg nga ko fala saf buub su gisaguñ ko buub bientôt bientôt mais jël ko bu mu defee ndel dégg nga def nank nank ay ñoom Cheikh Sarr ñoom Alima ñoon ñu ñëpp leen fàtte dégg nga yàq leen yàq leen ba mu ba ñu yàqu euh, j'espère ah na gars yi préparé abonné wu daw ci page bi reetaanagu leen am na yu gën a garaaw yu gën a garaaw Macky ak Sonko ngi ñëw non non ay génnal foofu <laughs> Aïcha merci beaucoup Maguette Dembe Wali en attendant voir si notre invité est bien là on va voir euh, de façon tu peux nous mettre la chanson Maguette Dembe bu Laty Diop da Wali Balago Seck bu fekkee ne yéen a ngi chez vous jug leen jaayu encore une fois merci mon ami. on se retrouve. ok jaajëf ci xam-xam waay yàgg ci dara faw mu jëriñ naam du du rek naam la maa ngi tekki waay yàlla may fasal mooy lool ku ne sa yéene ku ne sa am ci yi waay tàccu leen xale jërëjëf jërëjëf jërëjëf merci beaucoup il est toujours pas encore là peut-être que. c'est dû à l'embouteillage ah ñu ngi ko ci euh, xaar ba tey moom jaamaana il devrait être là depuis donc Mangok ah Grégoire lii de <laughs> lii xam nga Sénégal lañu mën a yokk mën ay wax yu sew man loolu gëwuma ko Grégoire loolu ñu ma yónnee noonu gëwuma ko mam Marème nag moom ma ko yónnee bëgg na ay wax yu sew naan ma yow nag da nga maandu ma ne ko man sama maandu gi kenn du ma ko ci dindi loolu daal lañ ma yónnee. jaaxal na ma lool nag pour man nag lu dëgg waaw yow nag Gero Gare comme que yaay ma yéerndu ak ma yaatu bu la neexee jàllale <laughs> ak am fit nag fit kese la bul jàllale lool bul jàllale c'est une fausse information donc il faut pas il faut pas partager ça 88 628 14 13 bonjour salaamaaleykum allo maa ngi ziar lépp jàmm noo def maa ngi dëkk Caajaay maa doon woo dem. ah waa Caajaay noo leen def. ñoo ngi fi. ba yéen a ngi ba kontaan ngeen ci seen émission bi. waaw kontaan nañ. yéen a ko moom de seen yëf la de. waaw. lu mu moom da cee war a kontaan chaque jour bës bu jot. dañoo bëgg nga delluwaat ñu Pape Diouf bi rek. Pape Diouf ban ci bu demb ba. waaye bu fekkee ni séeréer nga nag da nga war a xam ni tey du la tey du journée tey live la démb laaj nga ko ma wan la ko mais tey live la. Ah. waaw nañ xool benn laay pap après bu ñu la dóor rek nga gérer dégg nga ku bëgg Pape Diouf nga nag yow. waaw ñun Pape Diouf séeréer la. waaw ah li muy séeréer waaw. <laughs> moo tax ñu nekk Pansem. ah. moo tax ñu nekk Pansem. ah yéen moo tax nga nekk. fan si Pape Diouf lañ. ay fan si Pape Diouf ngeen. waaw. ndeysaan day séeréer yi ak ñoo neex nag. waaw. ah. <laughs> yàlla nga gudd fan kontaan naa ci yow dégg nga. waaw waaw waaw waaw ba doo lekk éponge rek ndax séeréer yu bari dañuy lekk éponge. duñ éponge ah? waaw waaw Gather them up and everybody wow wow Thousand percent people very much Shiri nangul ma Dama bari jam But your man na Lati du madam Sini yu liggéey everybody wants. ñëpp a ngi koy woo jotuñu ko <laughs> ñëpp a ngi koy woo jotuñu ko alors euh, l'invité est là Grégoire tu vas mettre la chanson en attendant mu tàkk micro am et on l'occasion de continuer davantage euh, mais Grégoire bëgg nga ay wax trop ñàpp euh, a ngi fee ci siri Diop a ngi ci wetam léegi lool loo ma ci wanaat di ma ci indilaat lan mooy problème bi Grégoire lu tax nga bëgg ay wax yu sew Grégoire lu tax doom maandu on va vous mettre ce clip de l'international l'artiste je vous le dis ah, dinaa leen dévoiler lu ngeen mësul xam ci artiste bi ma invité tey lu ma dem check man check check out xam na naan check it out dama ko dem check xool ko jël di di dimensionné di dimensionné ay nombre de vues am ba xam ni Sénégal kenn ëpp ko ci vue ci YouTube nekk illa damaa jom bi on va on va voir Grégoire mets-nous la chanson et après on aura l'occasion vas jërëjëf merci beaucoup encore une fois plaisir la ñuy àndal ak moom l'un des meilleurs de sa génération l'artiste euh, véritablement qui a plus de vues sur YouTube c'est Jaman Express c'est ce que je voulais vous dévoiler mooy que bu ngeen xayma artiste yi Sénégal moom xëy na peut-être sax du focus ci loolu ndax ñoom liggéey lañ gëm bu ngeen xaymaa ci vues nombre de vues yi am ci seen vidéo yëpp je dis bien et je pèse bien mes mots boo boolee ba xayma lépp Jaman moo ci ëpp vue donc félicitations sur ce ñi ngi am mbégte bànneex dalal ko aussi ci 11 13 la meilleure émission de divertissement en 2021 comme en 2022 ñu am plaisir toujours di ko dalal ndax c'est l'un des meilleurs de sa génération et quoi qu'on puisse dire aujourd'hui mi ngi jaay suñu musique ah Dia il fait de la musique comme il l'a si bien dit mu nuyu la la bu baax a baax fierté nga ci ñun ñu kontaan bu baax a baax ci yow lu ñu am ci yow rek doy na parce que nag mm. ah xew quoi. en tout cas kontaan naa. xacha di kontaan si teewaay bi. je pense que c'est ñëw fii. donc ñuy kontaan bu baax si teewaay bi di rafetlu job bi mu ngi nice kontaan nañ. di nuyu sénégalais di ñi nga xam ne ñooy seetaan émission bi di excuser wu un peu retard bi ak émission yi c'est pas c'est très terrible. mais kontaan nañ si le peu de temps bi ñu am xam naa on va parler de. plein de choses vite fait. Yeah, yeah. C'est ce qu'on va faire même parce qu'en un espace de jours, on a vu Grégoire 1 million 600 vues. Euh, comme je te l'ai dit, moom mu way di fo vues yi da ngay gis mu way jëmale ko ci diine vues yi da ngay gis donc à chaque fois on voit que ni tey euh, c'est le public qui aime Diamane et aujourd'hui lan mooy tey euh, euh, lan la la def ba loo génnee Sénégalais yi dañ koy bëggal seen bopp yow est-ce que amul loo ci yëg après en fait liggéey neex na sentir produit neex na mais nga génne produit ñëw ñëpp daw wut si ko aussi c'est très rare de nos jours ndax nit a lu neex chaque jour hmm. nit a ngi génne vidéo bu nice mais bu jaamaan génnee dafa mel ne Sénégal gi yëpp ay dem focus c'est quoi exactement <laughs> non c'est euh, je pense que plus de pression lay indi si liggéey bi ak plus de sérieux parce que su fekkee ne am nga tu es habitué à sa parce que jaamam c'est quand même jaamaan c'est quand même depuis réer on a tra on a traversé pas mal de génération ba fii et pour tenir constance boobu ba fii ça a dû difficile ak liggéey bu bëree bëree bëree mais ñu ngi ciy sant yàlla parce que tamit euh, comme ni nga wax à chaque fois qu'on quelque chose gis nañ ni Sénégalais yi dañ ci accroché wu c'est fait exprès dans la mesure où on est beaucoup plus proche de la population des problèmes li nga xam ne moom la ñuy dund li nga xam ne moo nekk si biir kër yi li nga xam ne moo moo le côté fun de de tous les ñu koy indi ci sens ci way yi parce que quoi qu'on puisse dire musique fola de temps en temps on peut passer des messages mais de temps en temps on peut divertir donc voilà et ça fait plaisir même de voir que à chaque fois ñu génne dara sama sénégalais yi ak àdduna bi yëpp ñu ngi koy bëgg di ko déglu donc. ça fait plaisir kontaan nañ si plaisir aussi de le voir parmi nous euh, da wax léegi léegi jëmale ko ci population bi j'ai vu une de euh, une de tes c'était en 2021 là avec euh, les hommes de tenue ndeysaan yaa ngi laan leen na ngeen jàppale <laughs> population bi te xam ne population bi seen ay frères lañu mais yéen tamit xam leen ne ñi seen ay frères lañu message boobu nga jàllale woon ça beaucoup beaucoup beaucoup en fait le fait que nga ñëw togg ak ñoom def ak vidéo et aujourd'hui ñu ci bari dañuy jàpp ni seen ennemis yi ñooy policiers yi. parce que lacrymogène yi. ñoom tam jàpp nañ ni euh, peut-être ñoom ñi ni dóor duñ seen ay frères. Mm. message boobu nga bëggoon jàllale c'était pourquoi. c'est parce que dama demoon Diourbel et ñoom ils étaient là pour sécuriser. ok c'était bu ñu waroon sécuriser. donc euh, man ñëw ñoom ñu wowal ma seen bopp. eh jaamaan mm. tu vois ma ne leen vous voyez yéen da ngeen di da ngeen vous êtes des personnes ay nit ngeen ab de base avant ngeen di nekk ay hommes de donc il faut que côté boobu noonu. cette humaine humanité boobu nekk si yéen bu mu jël le dessus ci seen liggéey bi ngeen di liggéey par exemple il faut que nit ñi mën a comprendre que ni yéen ay nit rek ngeen parce que là là là suñu leen fekkoon fii ngeen toog ak man on ne voit pas l'homme de tenue on ne voit pas la rue et eh, jaamaan ñu ngi bëgg ngeen di def donc il faut que yéen ngeen seen biir liggéey ngeen di wan nit ñi que vous êtes là pour les protéger et aussi nit ñi xam ne mm. ñoom da soo jëlee sa sa gardien teg ko sa buntu kër c'est parce que da nga ko wóolu et c'est parce que c'est pour ta sécurité kooku noonu bu ngeen amul benn rapport de confiance yow moom dafay compliqué donc vice versa il fallait passer le message et il et ils étaient pour déjà ñoom affaire bi dafa dañu dañu pare mu jékki-jékki nekk quelque chose de très viral euh, c'était euh, une façon pour moi de dire que yéen a ngi jàpp gars yi dóor rek seen <laughs> liif yu metti yi nii tey leen. j'ai vu ah les commentaires benn boy ni man de bàyyi barki démb dóor nañ ma ci benn. liif boo xam ni <laughs> et j'ai tellement rigolé mais message la bu jàll parce que le fait de voir tey benn benn benn citoyen lambda bu toog ak benn homme de tenue c'est rare de nos jours ndax dañuy wax sax naan doo photo ak ñoom waroo ko publier. à l'étranger on voit les policiers les gars yi ñuy toog di waxtaan seen biir donc c'était. mais vidéo amoon na polémique. après ñoom seen bopp yi nga xam ne ñoo nekkoon ci vidéo bi ñëw après dañ ma woo ne euh, dañ leen a dañ leen dañ leen a demandé ay compte il faut que ñu supprimer vidéo bi sinon il risque d'être radié t'as vu moi ce problème là je pense que et aux États-Unis tu peux voir des hommes de tenue ils sont là dans la rue ils se faire filmer yooyu ouais. noonu mais bon peut-être c'est notre constitution qui indique ça mais euh, c'est une façon aussi de dire que loolu rek moom mooy indi problème yi nga xam ne mooy am. donc il mooy am benn genre de différence waaye c'est des hommes de tenue mais c'est des personnes de base qui ont de leur famille benn jour mës benn gaañaan mës na ma arrêté benn policier ma foog ne daf may laaj sama permis mu ne ma mu arrêté ma dem toog yow ma ñëwee sama gaañaan jox ma sa permis ma jox mu dem toog ma ne ko gaañaan bàyyi yaa ngi ma bàyyi fii ma taxaw mu ne ma non yow wu ma la pour loolu de pourquoi nga ray nday genre sama son boobu ma xam ne nday laa fin ah. lu tax nga ray nday ak yow ban nit nga fan nga ko teg ma ni ko oyee oh <laughs> may woo sama jabar parce que yow noo way boobu daf sama fait pleurer et pourquoi nga ray ko donc c'est des trucs qui impactent en fait ay ah. way la yoo xamante nii day dem ba benn instant œuvre bi mel ni dëgg la c'est juste de la créativité. tu vois on t'avait préparé beaucoup de choses pas mal de surprises. Carré. mais on n'a pas assez de temps Grégoire je sais pas si ba par exemple. dafa jot ñu xàmmee ñu dëkkee sabotage suñu laaj jàpp otage ñu ñam baam ci fra ñoom pizza ci ay étage lekkante ni doomu ci askanu lëma fay ngëm-ngëm yi wax ma tu tànk réew mi fan la ñu jëm yow ñu ci mystère de ci ndóol duñ ko nangu bu yàgg qu'on a du temps que ça te rappelle cette chanson. waaye ouais, ça ça fait le début de Express. <laughs> donc lii mu ngi si ci euh, ça fait partie de annales hip hop yi. Yeah. donc xam Sénégal am na ay classiques yoo xam ne du mës de lan mooy tax du mës dee mooy je te done par exemple way yi nii ay lii mu ngi toog sama ay début man maa maa ngi doog a ñëw Express en même temps indi fa touche way bi ak yooyu noonu. donc on a fait sama baat y a parce que lu tax du dee mooy réer par exemple c'est un boo xam ne boo ko wayee léegi nii ay xale yoo xam ne bi muy am judduwuñu ñoom ñoo koy wayaat. dëgg la ñu fii pour man loolu moom mooy lyric sing loolu mooy loo xamante ni du dee ça peut aller avec toutes les générations yoo xam ne dañuy ñëw si kanam. Grégoire loo ci tegaat vas-y. Aïcha si on si on Cette chanson également. Yeah, Vitamine Number One Girl. Ah, yeah, c'était c'était il y a euh, ay souvenir la yoo xamante ni. Euh, yow di nga toog di dégluwaat Monsey yi. waaw de temps en temps am na si yoo xamante ni sax ñoo gën a yàgg gën a yàgg. donc ça nous permet juste de de de savoir que la constance elle est c'est c'est très difficile. Mm. c'est bien de bosser bosser ba egg si benn niveau bi. mais se maintenir là-bas au Sénégal avec tous les talents qu'il y a y a énormément de talent au Sénégal da ngay jékki-jékki tey kii génn suba kële génn donc c'est énormément d'artistes donc à chaque fois il faut que nga comprendre que ni tu en compétition avec toi-même ak sa bopp ak ñi la wër ak ñëpp moi je le cache pas je en compétition avec tout le monde hmm. donc ouais ouais je en compétition avec ñi ñëwagum pas seulement non pas seulement les rappeurs c'est da on ñun ci culture urbaine lañ bokk même su fekkee tey dañ ñuy gis ñuy nekk si beneen musique bu budul boo xam ne dafa ur day day am tuuti esprit mbalax wala mm. yooyu mais on est des artistes urbains moi quand j'écris j'écris pour j'écris pour que su dib toogee di ko déglu ne ok parce que dama si def ay punchline yoo xam ne moom su ko déggee dina xam ne yee wala beneen keneen wala beneen keneen donc on se comprend c'est des niveau ay business la yoo xamante ni si biir la bokk dangay ngay bis ma bind ba pare ñu ne ah kon kii lii la wax <laughs> je parle pa avec eux je parle avec mes frères rappeurs yi nga xamante ni ñoom ñu ngi job ci beat rap ak yooyu noonu pour wan que ni ñëpp su ma neexee man ma génne benn son hip hop carrément hip hop parce que je suis quand même issu de groupe benn groupe hip hop mais je j'écris j'avais un plume de rap ci ay son mbalax wala ci ay son whatever nu ma ko fiilee rek que du kabolov wala whatever lu mu mënti doon mais euh, c'est c'est c'est c'est quand même ça en fait. benn ensemble quelque part nga wax ni tu fais de la musique toi. oui. yow tu fais de la musique. cest à nekkoo fi di wu ci lenn. non music is free nobody can trap it. kenn mun a téye musique fii di ko. kenn kenn kenn mënul trap musique musique dafa nekk monde bu libre. parce que la réflexion elle est libre. mais fi nga ne nii est-ce que xam nga gars yi foofu bokk na si li njëkk a tardeel musique yow fii Sénégal loolu bokk na si li gën a tardeel musique bi. parce que un moment donné ñun bi ñuy ñëw fii y avait quoi Express ay les cinquième underground 23 3 ay cinq Kumpa ñun ci vague boobu lañ ñëwee évolution ak perm ci évolution moom moo tax ñuy continuer di ñëw bi si def sound ba léegi parce que on a voulu s'adapter les gens qui veulent pas s'adapter si benn affaire bi mooy que musique bi mu ngi bouger di dem ci yeneen étape et toi tu risques tu tu là là là alors que yow kaana bi nga xamante moom nga doon moom nga jàppee comme puriste mais il vient ici en Afrique pour chercher le rythme là tu as vu des collabs avec des artistes euh, américains qui font des collabs avec les Nigériens et tout donc il a compris le jeu et j'espère quand même que vous avez aimé même si c'est petit on aura l'occasion de faire avec lui je vais proposer ça Malik peut-être euh, pour que mu may ma ko live si esplanade bi avec Jaman ça serait ah saa yoo bëggee ñu def. jeex na Malick on reste en contact incha allah en tout cas merci d'être passé. carrément fait plaisir énormément plaisir. je sais xam naa li nga sax pour ñëw. Eh, mais xamal fan si ak soppe yi dañ lay laaj. donc ñun tamit du ñu mën lu dul di leen leen indil. yee càq càq laa mujjee jël. parce que dama jaar ma bàyyi oto bi fa lay dugg càq càq. ndeysaan a càq càq. merci moo tax degré il lui faut du temps kon ñu <laughs> bàyyi la nga tàggoog gars donc di wax ñëpp ne leen Gama Gueye bis toujours disponible sur et euh, je suis content de la manière ni que Sénégalais yi accueillir ak yeneen affaires ñu ngi studio pour d'autres trucs incha allah. parce que ça n'arrête pas. blessing kontaan ci ñëpp di suñu mbokku catholique yi kooru jàmm bon comme j'ai l'habitude de le dire ñu nekk communauté boo xamante ni sont très polis mm. très disciplinés mm. ay nit ñu am yar et euh, je profite de cette occasion pour dire que je vois souvent ci Sénégal actuellement y a un problème avec des trucs yoo xamante ni suñ ko toppee mën na indi leneen ce qui se passe avec nos amis guinéens Guinée, oh. donc ça c'est des trucs qu'il faut stopper si ah, vous le faites ah, vous mm. qui me regardez si vous faites ça pour mm. pour du buzz ou bien juste pour jouer mm. arrêtez avec ça parce que loolu xajul Sénégal et vous pouvez pas comprendre fan la mën a yem Sénégalais yi guinéens yi am na ñun dañuy dem dañuy dem Europe di def beneen liggéey mm-hmm. whatever te duñ am sax ay këyit mm-hmm. donc ils sont là à l'aise ñu ngi liggéey seen liggéey donc nañ leen bàyyi ñu liggéey seen liggéey vous êtes les bienvenus les Guinéens we love you Sénégal Guinée that's the same and we appreciate you. Mangok ñi ngi leen di béggee di leen kontaane loolu parenthèse la mais demain on va par exemple en parler incha allah rabi parce que nag ça fait l'actualité Sénégal Guinée bu ñu judd ñun duñ mujjee bëgg cee def dara lu ñaaw lu mës a rafet la doon donc bu ñu focus ci ay affaire de euh, ethnie wala ki dëkk fële jóge fële loolu dafa ñaaw alors merci à toutes et on se donne rendez-vous demain et euh, d'ici là je vais faire toujours euh, tout de suite incha allah un TikTok avec lui merci et émission 100% immobilier vous donne toutes les informations et activités du domaine immobilier. Dokuai vous permet de mieux comprendre l'immobilier avec des thèmes comme l'architecture, la construction, la déco, le design, la rénovation et l'innovation immobilière, ainsi que des thèmes sur les agences immobilières et les notaires, mais aussi les litiges fonciers et l'immo virtuel, sans oublier les processus de financement. Avec DocuWay, l'accès à l'information immobilière devient facile sur la des stv La Basketball Africa League est de retour au